aasibillahi mina seytaan rajim bisimillahi rahmaan rahim barki maam Serigne Fall Babu Mouridina bokki taalibe yi ñu ngi leen nuyu baax euh, te di leen siyaare ci turu sëñ maam Cheikh Fall mi toog moom Cheikh Trip Assane moom maam Serigne Fall sëñ maam Cheikh Sikrullahi sëriñ baa ngi leen nuyu baax di jiital ci ay kàddoom nag di ñaanal baax sëñ bi Fall mu sëñ Modou Mbenda mi fi nekkal maam Serigne Fall sëñ baa ngi ñaan suñu borom yàggal ak dundam wéral ko itam ba lim ba liggéeyal maam Serap Fall lépp mu def ko ni ko soobee te ñaan ko ak moom di ko ñaan njawtuk maam Serap Fall gépp nag di sàkku mbégte ci ñoom ci ñaan sëñ Touba si Ahmadul Muntaxa ko itam ba lim ba liggéeyal lépp mu def ko ni ko soobee tànn ko bunt kër sëñ yëpp nag sëñ baa ngi leen nuyu baax waxtu yi mu doon baaxoo nuyoo ci ndigal loo xam ne. sëñ Daara mu sëñ Modou Mbenda jox na ko ko jëlee ko itam ci sëñ du Cheikh Mountakha ndigal loolu nag moo na tax daje fii ci kër Cheikh Mountakha gii sëñ bi yëkkati kàddu jëmee ko ci mbooloom tudd ko ci yàlla yëpp sëñ bi di ne mi ngi leen nuyu baax di leen siyaare jot itam ndigalul sëriñ bi muy sëñ dafa wax ne ajuma bii di ñëw incha allah rabbi dafa bëggoon ñu dundal tur yàlla wi fi nu ko baaxoo defee. ci penku jumaa ji foofu nag la sëñ bëgg ñu bokk fa dajeen ñëpp ajjuma incha allah rabbi yëkkati tur yàlla wi mu mel ni nañ ko baaxoo daan defee nag li ci soppiku leen sëñ bi di leeral mooy sëñ dafa wax ne dafa bëggoon ko tuddukati yàlla yi tijji liggéey bi ndax liggéey bi dafa ànd ak njàngam alxuraan ànd ak njàngam xasida lépp du ci benn bis bi waaye mu bëggoon nag wala njootu maam Serigne Fall gi ñiy tudd yàlla ñëpp ñu bokk na tijji liggéey bi def ko ci lu tolloog ñetti waxtu su ko defee tolloog ñetti waxtu mën a dallu nag bàyyi ñiy jàng alxuraan nu yeggale nii jàng xasayit topp ca ba waxtu ngoon wi sëñ bi ñaan liggéey bi loolu yi nag nga xam ne moom lañ ci am muy ñetti waxtu yoo nga ne moom la ñuy tuddloo yàlla ñu bàyyi xel ne sëñ bi dafa wax ne ajjuma ji lañ koy tàmbali waaye ajjuma ji nag da caa yemut ajjuma ja ca topp dañ koy bokk defaat nii mu ko digle woon ni leen ko diglewaatee ñu bokk ko def ci ajjuma jooju yi ajjuma jooju itam bu ñu ko defee mooy ñaari ajjuma ci weer wi weer wii ñëwaat ba fii ba màggal ga dafa dafa sàkkuwaat ajjuma ja ci jituwaat ñu dellu ko defaat ak ajjuma ja ca toppaat kon dafay mel ni ñeenti ajjuma ñu ngi ci waaye bu ci nekk day doon ci weer wii dugg ci lay la ciy del ñaari ajjuma yoo xam ni da ci tudd yàlla loole nag di liggéey boo xam ne liggéey bu rëy la di liggéey boo xam ne ma maanaam liggéey bu mas a jaar dafay mel ni bii moo ko ëpp doole ci ñun ndax ndigal lu mujj ëpp doole te moom mii Sëñ Tuubaa ni mu ko bëggee boo xam ne feeg màggal ga la bëggoon loolu sax fi lam ci jublu moo ko xam nun nu am tawféex mu duñ ko defloo nag yàlla nañ ko xam xam ngi mooy kenn ko ci ñun sëñ baa ngi bëgg nga jàpp ne yëf daal lu ci jag ci la jage kenn ku ne jàpp na itam yow la sëñ bi jàkkaarloo jox la ndigal li di la ko def loo kon nag njawtu maam Serigne Fall gépp mi wax la tudd kat yàlla yi sëñ baa ngi leen woo nag ci ndigal loolu yi ndigal nag dafa bokkul ak xalaat lii ndigalu sëriñ bi la moom mi ko mi ko santaane itam moo wax ni koy defee moo tax noonu la ñu ko fas yéene defee itam sëñ maam Cheikh nag di wax ne bëgg na incha allah rabbi ñun ñëpp ñu bokk waajalee noonu ba nga xam ne waxtu wi nga xam moom la ñuy soxla tuddkat tuddkat yàlla yëpp ñu mën a daje ci penku jumaa ji incha allah bi ba nga xam ne waxtu wi suñ bëgg nu nu ñaan buñ ca tolloo dara du ca toppaat kon dafay bëgg incha allah rabbi huit heures nan ñëpp nañ na fekk ñu daje ñun tuddkat yàlla yëpp ci penku jumaa ji mi ngi wax na tuddkat yàlla yi nga xam ne ñu ngi ci réew mi ba ci nekk ci bitim réew ñëpp la sëñ boole ndigal li ndax ndigal li ñëpp la ko joxandoo mboolem ko tudd yàlla rek te yëg si Rafal ci ndigal li nga bokk kon nag sëñ baa nga tudd tuddkat yàlla yëpp kilifa yi nga xam ne itam ñoore bopp si yi te nu ràññe leen xam leen bu baax te yoonu Baay Faal di toppante nga xam ne ñooy suñu kilifa ci tur yàlla wi te yàlla dogal loolu ci ñoom ñun ñëpp bokk nañ leen xam tàmbalee ko ci ah, sëriñ Cheikh Ndoy sëñ Mbay Faal sëñ Daam Njaay sëñ Moor Njaay ba ci am lu fédération bi sawu jant yëpp ak ñi ko bokkal fii yëpp sëñ Cheikh itam yàlla dogal mu nekk ca bopp ba foofay ñoom ñëpp nañu xam ne ñoo bokk liggéey bi na ci kenn ku ne na jàpp ne bis bii ñu koy tàmbali bokk nga ci ñu ko war tàmbali bañ bokk fa dajandoo bu ñu nag sëriñ bi ku ne xam ne ñetti waxtu nun ñëpp maase nañ xam ne ci benn jataay bi fawoo mu am nun ko doxalee ba ñëpp mën a dégg si kar si su boobaa nag sëñ bi dina wax ñi nga xam ne ñoo koy tàmbali ñu tàmbali bopp si kar si bu ñu ko tàmbalee ba nu yeggal aajuma ja ca topp ñeneen ñu ko war tàmbali taxawee ko suñ tolloo ci yeneen ajjuma ji ci kanam ñeneen ñi ko taxawee taxawee ko buñ toll ci ajjuma ji mujj ji ñi ko war taxawee taxawee ko waaye bopp si kër yëpp incha allah rabbi dañ bokk ci taxawaay bi waaye bis bu njëkk bi itam ba baa muy muy yem nañ fas yéene ba kenn ko ci ñun bul ci wute benn bis nanga ci ñëw ànd kook ñoom taxawu ko ba liggéey bi yegg ndax kenn ku ne fas ci la nga bëgg itam te xam na sëñ bi itam wax na léegi bi ñu koy leeral li sëñ bu fas lépp mooy fas na ci ni ñoo tàmbali nan sellal ñëpp nag njëkk a ñaan réew mi sama borom def fi jàmm ak salaam ak naataange itam ñaan itam nawet bi di ñëw sama borom barkeel ko te def ci itam ndoxum jàmm sëñ bi nee ñaan itam màggal suñu Tuubaa gën a jub ñu dugg ci bu baax a baax ci bismillahi rahmaani rahim bàggale ko ci alhamdulillahi rabbil alamina te itam dëppoo ci ngërëm la sëñ bépp te am ci tawfeexi sëriñ bi ba def ko ni mu ko bëggee kàddu yooyu la wax ne nañ ko fas ci liggéey bi noonu bàyyi fal yëpp bu ñuy tàmbali loolu nag xam ne ñett yooyu kuñ ko gàll ci saw loos na na ko fas te def ko war ngaa xam ne gàll nañ la lu diis nag kon tur yàlla yu dafay mel ni ren jii la gën a diis yu fi daa jaare yëpp nu bàyyee ko xel noonu mboo tam sëñ baa ngi santaane baax itam mbooleem koo xam ne yaa ngi ci réew mi ak réew te itam tur yàlla wii ñor la itam te nga bokk ci nga xam ne mbooleem luy tax bis ba jag ci suñu ci ñun la aju loola nag sëñ baa ngi ciy soññ mbooleem ñi nga xam ne maam Sénégal képp la ñuy liggéeyal te ne ci réew mi ak ci bitim réew te liggéey maam Cheikh bépp ñu ngi ko jaaree ci am ngërëmal sëñ Touba sëñ baa ngi leen fàttali mbelam luy yëwénal bis ba ñu bokk ci ñëpp defandoo ko mooy koo xam ne mën ngaa togg aw ñam wu jëm ci turkati yàlla yi ko def koo xam ne mën ngaa joxe itam lu toggoo ñam jëm ci turkati yàlla yi na nga ko def ku mën a joxe ndox mu naan jëm ci turkati yàlla yi na ko def ku mën a joxe am ndox mu jëm ci turkati yàlla yi na ko def ñun ñi nga xam ne itam dañoo ay daayira sikrullahi nan waxtaan ak mbooloo mépp fexe nu jaayante ñun ñëpp def ko ci bis bi ndax ñeenti bis la te bis bu ci nekk lu ci am ñun ñoo koo taxawu sëñ bi moom lim ñu war a defal mooy digal nu digal nanu nañu def ba mu jag nag ñun la war kenn ko na nga jàpp ne kon la ko war a jagal coow la bàyyi koo bu kenn dese dara buñ ko tal nan ne ci sëriñ bi rek bàyyi suñu bopp sëriñ bi def suñu lépp ci sëriñ bi suñu ko defee lim nu bëggal dinañ ko am te lim nu bëggal nu ñëpp maasa nañ ko xam mooy daa bëgg ñu bañ am genn jot nde du nekk sëriñ bi rek su ko defee dinañ seytaane te lépp nag jub lépp lu baax te liggéey bii nag ñu xam ne sëñ Tuubaa koy liggéeyloo maam Serigne Fall mu teg ko ci suñu loxo nag ñun ñu di ko saytul dunu ca dara sëñ bi moo yor lépp fu mu bëgg mu àgg fa rek dana fa àgg sabablu bi rek moom la ñu def loo kon nag ku ci nekk ñun booy ñëw sëñ baa lay fàttali melaw barab bi mooy Baay Faal bu mu ci maa doon kodd mii na nga ko njëkkee mooy laxasaay gi na nga ko laxasaay kodd moo xam ne kodd murit lay doon te nga laxasaay yorom melaw Baay Faal soo dëkkee itam wax looñu fa dara lu tudd yàlla tur yàlla rek lañ bëgg mu jóg ña ne ca benn façon liggéey ba ne ca organiser ak di liggéey waaye kenn ku ne fu ñu la ci yamloo ca ñuy organiser bul werante ak yem foofu ñu la yamloo xam ne mooy ndigal li loolu leen sëñ bi sant te murid bu maa doon nag ñoo xam ne sikar si itam sëñ bi Tuubaa lañ ko def loo fii itam ci penku jumaa ji lañ ko def loo noonu ñëpp ñu maase xam ne foofu lañ koy defee insha allah rabbi sëñ baa ngi ñaan nag mbooleem koo xam ne yaa ngi ci jëm si yàlla na sa borom dimbali tàggat la defal la tawféex ba nga ñëw ak jàmm fekk fi jàmm tañ àggal ko jàmm tam ci ngërëm maam Serigne Fall seen Fall sëñ Modou Mbénanda li mu sax sëriñ bi mooy nañ fexe ba ni ko sëñ bi bëggee na ko ne jaar nañ ci jaarte ci nag ñu ngi ñaan temps boobu nag lu ñu ci mas a jaar ba sëñ ni ma ko bëggee amee naa ko raw sëñ baa ngi ñaanal ñëpp tawféex di ñaanal ñëpp jàmm nag incha rab bi kon ñëpp ñu bokk xamee noonu kër kuréelu sikkar nag ak foo ko mën a yoree ci réew mi ak ci bitim réew na nga soññ mbooloo ma nga yor soññ leen itam ci jaayante yi ñu jaayante mu jëm ci liggéey bi ngir lu mën a jagal liggéey bi ak barab bi ak li ci war lépp ñu bokk ko defal suñu bopp sëñ baa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp fédération yi nga xam ne itam ñoo nekkee biir Touba di ay baay Fall ñoom ñëpp sëñ baa ngi leen xamal ne suñ tolloo ci alxames ja ñëpp bëgg na ñu bokk dayee ci ponk jumaa ji mën a baas baas yi mën a seet fépp foo xam ne fa la sécurité war a jaar ñu mën koo organiser ba baas ko ba taxaw lépp ba lépp aw ci ni ko sëñ bëgg nag kenn ko na nga jàppoon nag wat goo rek fa la sa ngërëm nekk sëñ baa ngi ñëpp nag rawatina xidmatu maam Serigne Fall bi nga xam ne ñoo fa nekkal tuddukat yàlla yi te yor seen organisation ñoom ñëpp sëñ baa ngi la ci soñ réew mi ak bitim réew ak mboolem kilifa yëpp di ñaan sa boom ne def ñu taw feex ak jàmm ba def na sëñ bëggee te yàggal fi sëriñ bi lool def ko taw fii ak njootu maam Seex Faal gépp jërë ngeen jëfti ndigal laa ngoogu